boroom xam-xam yi gën a siiw ci réew taalif ko muy Iba Der moo andi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay nett ndax dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngilewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngilewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci. fànnub yoonu murit ndax man la ca des dama ci maandu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ kenn ku ci nekk am loo gëm sa moom di ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii la mu wax ak mu wax waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumtee moom loolu bind bu ko waaye dindiwaat ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumal te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sax mën naa fi ni ci biir réew mi kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu mooy reconnaître téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo ko bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira raw bu rayaaxin bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murid bañ ko déggee kenn woowu lañ ci waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité ca rajo bu njëkk ba ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca liñ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko kër gi lii yëpp senegal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen weesu ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ boobu dañu mujj amaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay wérul ndax naaj joxe benn firnde bu gàtt am na ca benn ci ci masdar boo xam ne dafa wax ne Sëriñ Tuuba ci sareexa ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima di jëblu kon loolu la muy junni ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Sëriñ Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee ci loolu njuumte la am na ci yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ci ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ci lam ci wax it nee na Mamour Anta Sali tëntoon njàng de moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu dañoo Mamour Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université da ndax lépp ci réew mi ci yooyu jamono. bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne ci dafa fànnu ci naxu wala arul wala bayaan wala mantiq wala fiq moom la daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université la kon ñi ñi ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nangu ko te ni ñu ko koy digale ci suñu biir tam ne nañ ko koy digale ci kër gi yëpp ndax ñoo ci aw atte fenn fu ci ne na dem laaj leen ñu jox ko seeni mbind mu boole ko yam am ñu dóor ko ci biir topp ko bu téere bi leer mu génn ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mënee su ta bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee moom bu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu tubaab ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal ànduñ ci ànduñ ci tey ànduñ ci ay li fi defaraatuñ ko ba téere bi def ci yoon loolu moom ñu ngi koy wax ci kanam adduna sépp di ko xam bu fekkente nag nanguwuñ caa dellu boobaa la Cheikh Abdoul Ahad rek la waxaat ba fi teree am suñu gàntu ci Mbacke daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal bu ko bu fa kenn dem di fa ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat yi bañ déggoo ci boobaa itam. dana jël responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci lu ma ci leer la euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu boroom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même te ñu fi dëkk ñëpp. ñoo bokk réew te suñ boroom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi te suñ kilifa yu baax yi fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgër yi lépp di rafet kon loolu lépp loo xam ne mën nañ ko ci góor góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continuer ndax koo xam ne mënoo tuxu mënoo jóge fa nga dëkk kooko jàmm rek mooy la la jëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullah